sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mbokki jullit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di ñaanal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké ñoore di général suñu borom yàggal ko wéral ko nuyu kilifa yu baax yi nekk ci jataay bi bu ñu tuddee Serigne Bachir Mbacké moom Serigne Khadim Awa Ba moom Cheikh Mamadou Lamine Bara man la ñoo jaarale ci moom nuyoo njabootu Cheikh bu Xadim bi yëpp waaye di nuyu Serigne Ousmane moom Cheikh Ahmadou Kara ñoore mbokk euh, yi noo leen di nuyu bu baax di am mbégte ci jataay bu am solo bi nga xam ne jataay bu rëy la jataay bu yaatu la ma bëgg a indi astaf rek ci sunu jàmbaar ci tax ñu daje ni ci amul karabat bu rëy te li ma ciy wax li ci ëpp dama ko dund ak moom sëriñ du grand général yërmande la damay wax léegi bi ñuy ñëw ci yoon bi ma sëñ Modou li ko yàlla tàggatalee mbooloo yi xol bu yaatu bi mu ko defal ci mën a muñ ak yar bi def ci njabootam keneen ku ko amee woon te meloo nii mu mel da nga indi ak yëngu bu rëy ci àdduna ndax sëñ Modou danañ ko tooñ ci alalam tooñ ko ci njabootam tooñ ko ci deram te du fayu kenn du fayu te am na kattan loolu nag dañuy wax ne bila afwi inda al maqdirati tamliku xulub saayim baale ci ba ngay mënee fayu ci ngay moomee xol yëpp bu ñuy wax dégg njàngaleen mu Cheikh Ahmadou Bamba si Ahmadou Karam moo Sëriñ Tuubaa moo ne wasbir ala sabbi wala tujib ahad Sëriñ Tuubaa moo ne leen muñ ku la ŋàññi bul tontu kenn Cheikh kenn ndax xolam bu yaatu ak yéen waaye mbokk yi Moodu bi may def woote ba waxoon naa ko Sëriñ Basiiru Mbacké wax na ko Sëriñ Moodu def li ñuy tuddee taxawut aw taxasufi du du tàggat leen lambatu dañ koo won lu leer nañ dañ doon ku mat a bàyyi xel ndaayaan Serigne Modou Awa Balla Mbacké mii taawu Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Muxti moo ne woon ci Modou mu jóg jógaale leen jàpp leen ci Modou mu jóg jógaale leen jàpp leen ci Modou bu baaxee baaxal leen bu melee neneen baaxal leen te ngeen def ko muy seenu seen Tuubaa sëñ Mourou Awa man la wax na ko Moodu adduna bépp bu ñu soxal di fetal di la niir loolu la jàpp na ko Cheikh bu mag ngay doon waaye moom la saf na ko danaa ñaan sa loo bëgg mu def ko mu ne ko ah du ma ko ñaan sax loo bëgg sa borom def waaye dafa am wax bi Cheikh Abdoulaye waxoon Cheikh Mbacke dafa waxoon sëñ Moudou daf ne ma Cheikh daf ma lëng na saa waay mbaa sa léppay sotti ak sa ñëpp ak sa lépp. bëgg la woon ginnaaw defe naa. li mu maye ci ay boo ko doon luñ ci réew mi xamuloo ko def lu toll noonu te bu koy def da cay ànd xol bu yaatu xol bu feex waaye boole ci nag laa biir bu toll nii li ma gën a yéem ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni du bokk moom ab jataay wala ngeen toog ci téléphone bi wax du tudd nit du wax wax du ñaaw boo tuddee nit booy wax moom ba tudd nit ne ko dama doon wax leneen lu kuy xalam baat bu ciy duggee mooy ah, loolu moom soree naa bu cant bi waaye ku tedd ki de daw la génn ci sa xel ak sa xol jàpp koy jàppal ki nga xam ne saa yoo waxee moom mu raxas kañaan ak ayaan ci xol bi Cheikh Kara ku gore ku jàmbaare ku am fit aw fit na sëñ Tuubaa dane liggéey sa alal nam leew la nga koy joxe ci yooru yàlla loolu moo di ak njàmbaar moo di fit waaye werante xuloo moom loo wute képp la sëñ Moodu wane ne sëñ Tuubaa ci mu ci mu ne joxe ne sëñ Tuubaa ci mu ne mbokk yi xoolal ñaari baat yi Bàmba doy na sëkk te doy na sëkk ci saytu ak ci xoolal yooyu baat loolu bu ne Bàmba doy na sëkk làquwaay doy na sëkk wéeruwaay te a Tuubaa waxal boppam ne amarani rabbi bi an usarriha bi annani malaadun wa himan man la yàlla wax na naa wax nit ñi maay wéeruwaay bi làquwaay bi ku bëgg jàmm àdduna ak àllaaxira kaay làqu ci man mu ne Bàmba doy na sëkk ka doy na sëkk ci ak ci loolu la monsieur Amadou Kara Mbacké Cheikh Amadou Kara ku ne na la yàlla jox nungul na la ko buur du baadoola du ab sëriñ ku mu seen ngay yëngu jàpp na ne moo la war a jariñ du njariñul boppam lu tax muy wax sëñ Moodu ba àdduna di tukki lu mu am ku mu am koo am lu mu laal ku mu laal kaw lay jël du wàcc lu mu kon bu joxeñee bëgg a dimbale nit ñi moo tax mu di leen joxe moom de xanaa dana doy ci li kenn du la ma sëñ Moodu wax kenn du ne la ma sëñ Moodu def xanaa la ma sëñ Moodu wax ci lu baax la ma sëñ Moodu defal ci lu baax bu ko nekkoon mooy ëppi kër ci Ndakaaru gën mu teel a rafet li ak ci adduna bi bu ko neexoon ci adduna te moom kat ku mu waajal la ndax soxna maam Mariama Sëy moo ne ko woon man na de damay jigéen waaye sama borom a xamal na ma bala yàlla sàkk da laa sàkk nga doon buur doon si démb ci téléphone ma ne ko man daal sëñ moom gëmewuma la li ngay wax nit ñi moom sama yoon nekku ci ndax ñoom nga ko wax la ngay defal nit ñi sama yoon nekku ci ñoom nga ko defal man li nga ma wax laa gëm yow yaa ma waxoon ca Thiès 2011 2020 21 yaa ma wax ca Thiès nan gànn na ma ne la Mbacke gari ma ba ren di déwén ma ne léegi eggatul ba ren di déwén ba tey ci suba lañ toll romb romb naa ren di déwén man moo ko waxee ba ren di déwén mu ne ma samay wax nag lu mat di moytu samay wax lu mat dafa jox Serigne Touba léppam dese lu tax sëñ Bassirou Mbacké mii moom Serigne Khadim Awa Ba rëkk bi ñuy lépp bi ñuy waxtaan ci téléphone ndax ma wax ne ma sëñ Modou ku tey bu baax war nga koo jàppale daan na ma ndax xolu sëñ Modou Kara doo ca fekk lenn lu ci yëngu lu dul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sëñ Touba lay doxe sëñ Touba lay waxe sëñ waxtu wu waaye loolu day daf ma na la dafa am ku ne ko dama gént ku tedd bi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu ne yow Modou Kara Cheikh Ahmadou Mbacké yaa ma def nii waaye da xam ne doo gën a gore te yi Serigne Saliou Mbacké waxoon na ko ne kenn ba mu ko defee léegi ñaar fukki xar ak benn ndékk dana ko nu yéene ci toll kattan gi dana ko ëpp nu yéene ci toll kattan gi dana ko ëpp sëñ Moodu mu ne wanee na ko ci façon bu ne ku tedd ci am ba kon nag bu ñu demee ba agsi ci àdduna man ne li ma àndeek moom te moom la ñu bari àndeek moom waxuma ñi lu yaakaar ko jox ko seen bopp seen Moodu ay taalibe boppam waras na cee jàngale du koy naxe ndax da ngeen a mës a dégg ñu ne ma ngay woote ay cotisation di laaj sas da ngeen a mës a ñu koy rang muy léegi ak yéega bindi leetar naan jox leen ma nangam taalibe yu ko yaakaar gis ko ba di ko jox sox defuñu ko mën a yegg ci moom ku naxul ñi nga àndal doo nax ni nga àndal fi mu toll ci adduna si sëñ Modou Kara laa xam ne bu ne woon ay bakkan laa soxla feeñ ngoon dana doyee bakkan ku wekk nekkal sa bopp ci moom dañu bii ñu daje tey man de yaakaar naa talaata la ma ko wax xaw ma altine xaw ma talaata ko wax ku moom da nga ko woote juróom benn weer fu ne dafay ko communiqué di yëgle bi sonn waaye ba mu ne nangam laa bëgg lu mu joxe ñu fekk ko loolu la ko yàlla def kon nag Cheikh Ahmadou Kara Mbacké loolee as gor